xale yoo xam ne maanaam dañ leen di teg nattu ñaari yoon première nattu bi mooy dañuy judd du am kayit jàng ba war a dem defi examen ñu ne leen du ngeen def examen parce que yor leen kayit te xale bi defu si dara guvernement bi li mu décidé ci loolu ñaari mbir la ay weer ci ginnaaw premier ministre waxoon nañu ñun ministère collectivité locale ak ministère justice ak éducation ñu tenir benn maanaam yoon yoon bu ñu gaawal ci bépp parent boo xam ne bëgg nga sa doom am kayit ci lu mu gën a gaaw te mu war a def examen yoon boobu boo fa jaaree daañ la defaral kayit gi ci lu mu gën a gaawee donc lu spécial lu ñu defaroon la pour xale yooyu ba noppi tey bésu examen bi amul benn xale bu ñu delloo këram parce que yorul kayit kayit googu tey dindil nañ ko xale yi parce que bugguñu kenn dem examen ba noppi doo ko def ñuy ñaax parents itam ñu gën a góorgóorlu